jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fa seen a ñëw ñu koy defee ayu bés bu nekk dëgtal leen li nga xam ne moo di seen chronique euh, dama yàgg wax ñu may miim du am lu mu wax amul waaye yàgg yàgg teg nañ seen bët yàgg yàgg teg ngeen ci seen bët laa wax wala dégg ngeen ko seen nopp ñu bari nak tambali di la wo ali da waxon nga ko li no defon ba xam ko yag bawul dara nañ dem ba ci kanam tay dañuy tambali ak ay kaddu yo xamne ne yi ñing koy dakantale legi demi je may wax ne wala moy ambassadeur plénipotentiaire yalla fi ci sénégal wala moy rakku yalla di wax astaghfirullah sax ndax bakar la di wax lu mel Khalifa D'abord, la décrispation euh, ne saurait être réduite à une dimension de grâce. La grâce est un pouvoir constitutionnel du président de la République. Ça ne dépend que de lui, et de lui tout seul, et de son appréciation. Donc je ne peux pas discuter de ce que dit la presse par rapport à la grâce. Le jour où j'en aurai la volonté ou le désir, je le ferai comme j'ai eu à le faire euh, annuellement pour plus de 100 personnes, voire un millier de personnes par an, en moyenne bénéficient de la grâce. Et c'est justement, nous voulons revoir notre système pénal pour réduire le nombre de personnes en prison dans ce cadre-là. Dakar Matin. rotal ci qui ak wa RFI lepp lu ñuy wax lu jëm ci walu réew mi bitim réew lañ koy waxee macron du ñëw benn yoon fii ci sénégal di yéey di yàbbi lu jëm ci gilet jaune yi di def problème interne respectabilité la nga wek sa bopp wek sa askan wek sa réew waaye nag complexe boobu moom du lu bees dañoo foogoon ne war na mën a dañ ci réew mi dégg ngeen kaddu yooyu nga xam ki ñu dàkkantale legi demi je wax nako. dakar matin désir ak volonté bu ko amee lay bàyyi xalifa ababacar sall mi ngi rotal kàddu yooyu quarantième jour ba Ousmane Tanor Dieng génnee àddina mi ngi rotal kàddu yooyu bés bi rob Jacques Diouf mi ngi rotal kàddu yooyu yëgal ne Amad Dansokho génn na àddina jën ko rendre hommage waaye fii la ñu tàmbali tey loolu yépp nag mu wax day indiwaat rek la ma leen waxoon chronique 14 août Dakar matin ma dégtale leen ko ngeen dégluwaat la ma waxoon ca booba ndax nag ñu bari dañ ma dañ laaj pap ale lu tax nga noppi ci li nga xam ne ni ngi koy waaj def libération khalifa babacar sall mu tabaski ak njabootam mana len dina len tontu buñ tabaske ba paré amna luma le 14 août dama len koy dektelat ngeen deg lima waxon dakar matin ba ciow li bare ñi wax grâce tay grâce suba ciow li bare lol yeyuma ci yabbi parce que dama ne ñi di wax dañu umpele kuy président Macky Sall ci deug deug dama leni wax fi yag na ko wax ci ay chronique te dara mu dañ bu khalif généraux yépp andando won ñepp la wax de khalif généraux yi nek ci réewum sénégal gi yépp andando def délégation jëm palais présidentiel ñaan ko ko ci njekk ak teranga te du bëgg bëggam mom du ko def dama ne bu khalif généraux yépp andando won la wax de waxuma ñu yebalay nit de ñom ñu jog sen convoi auto ñew na ko président Macky Sall dañ lay set dama lay wax buñ ne ko dañoo bëgg nga bàyyi khalifa ababakar sal di la ko ñaan ci njekk ak teranga lo jappon bàyyi te neexul maki Sall te du bëgg-bëggam du ko def bu khalifa ada yëpp andon ci délégation bobu timit du ko def bu responsable politique yëpp jogon timit du ko def xam ngeen lutax parce que fu mu toll fu mu taxaw mi ngi bëgg di wone saa su ne ne moom mooy kilifa ci réew mi lu ko neex lay def lim bëgg def lay def Dakar matin kenn du ko teg benn pression te saa bu ko bëgg a defee la koy def Dakar matin mu mel ni newoon naa xalif généraux yi nekk ci réew mi yépp waxuma ñu yabal de ñu àndandoo ñoom def convoi julli fajar pale tisbar takusan timis gewe ba nafil fa taxaw ak mom ñaan ko njekki na ko bayil khalifa sall du ko def tank dekul désiram wala volonté la parce que mo mel nonu en fait lolu nak day tax may sakku di ñaan ñi nga xamne ño jégué kilifa diiné yi ne way way way tayi len diko di len dakar matin ndax du len ko may ba para wax len lenen du len ko may parce que du bëgg bëggam lim bëgg lay def subak ngon rusu ci kilifa diine rusu ci kilifa aada rusu ci sax nawle mu politique bëgg lay def mo wax nako bu nekké sama désir sama volonté amul benn segment bu nekk ci société bi bu mën a taxaw janoog Macky Sall lépp la fanxale en réalité lim wane foofu lu gàtt la te mën koo wax modi Macky Sall nekul un président de la République c'est un chef chef lim bëgg lay def loi bi d'accord ci da koy def texte d'accord ko da koy def président de la République du laisser transparaître ay sentiments so déggé ni mu waxé ci mbiru Khalifa Sall da ngay gis ay sentiment lay exposer sax sentiment de haine yu muy fessel ci mbiru khalifa ababakar sall sentiment de haine mañel gu tar gu muy fessel sa suné dom bay bo muy wax du lek ci nek ci bir xolam dedet sentiment mbañeel gi muy woné sax bu ci wax dang koy dang koy sentir président ku ko yor do waxé ay désir ak volonté dedet le 23 juin bëgg-bëgg ablay wad mo nekkoon ñu wotel ko projet de loi bi ciow li bari mu autoriser ñaari manifestation yépp buntu assemblée nationale bu ko neexoon mbind way takk der yu bari lool ñu tëj assemblée nationale majorité mécanique am votel ko ko loolu nekkoon désiram waaye ba mu xamee ne lii day taal réew mi ciow li bari na ay kilifa diine ñaan ko mu retirer projet de loi bi naam askan wi taxawoon nañ jonn timit ngir defanteeg moom Abdoulaye mayene pendant un mois place de l'obélisque chaque jour ñu yëkëti ay góor gi dee soli leen ko mu muñ ko désir ak volonté kilifa deug du ko yoré réew Dakar Matin day am yo xamné ne réew mi ci bopam mo koy laaj donté du sa désir du sa volonté nga jéggale mais xam nga président Macky Sall ci lu nekk ni defanteeg sénégalais yi defanteeg ñi bëgg ñu libérer Khalifa Babacar Sall ah bon dañuy signé ay pétition man lañ vous allez voir je suis le président de la république un point un trait non yoyu waxu chef la du waxu président de la république président de la république da ngay njaboté ñëpp yor réew bo yoré réew mom lo xamné réew mi moko soxla wala leneen moko soxla donte du sa bëgg bëgg sax dang koy jëmmal waye di wax di désir volonté ñepp xam na grâce présidentielle ci yow la dess kon le seigne muntaxan sak won ci yow nga ñak ko def ba paré né parce que gaay defu ñu demande de grâce dedet lolu amul li am moy nekul sa désir nekul sa volonté donte ñaan lan lako lolay dëgg kon kilifa diine yi nga xam ne ñaan nañ ko buñ ko ñaanati njabootu xalifa ababakar sàll nañam fulla ak fayda bu toyl ni di ko seetaan ndax nag yàlla du ñaar du ñett benn la taxawaayu garmi ngeen war am ni ko xalifa ababakar sàll amee ci biir kaso bu rëbës ñaata nit la ko maka sàll yabal ñaata nit loko yabal pour lan mu jay dignité ak ngorom dama né dignité ak ngor bré almet la bo xasse tak dotul tak di mukk khalifa bu mu len gëna diñ khalifa bu mu len gëna diñ mom mi nek ci bir kasso waxi grâce sax ngeen wara gas bam xoot Sul bayyi chef bi parce que ki ngeen yi wax ak dakar matin du étofu kliftef chef la won jaay doole bund xatal maam samay juge ku wax ma tëj ku wax ma jappalu takal la dara lepp kon ngeen war ci mandu di setan te nak kilifa dine yi nañu xamne ne lim leen jox ci réponse ak la wax ci biti du ben parce que bu ne sama désir ak sama volonté la jaratul ñaan bayi len ko ba nek ci désir ak volonté comme mom non la jappé ne réew mi non lañ ko wara ay désir ay volonté da ngeen koy bàyyi noonu di ko seetaan yàlla dina ñëw te du ko xar xam mu dugal ci xelam dugal ci làmmiñam dugal ci loxom mu signé ko te du ko tey bu paree nag lay doog a xam la lan la def ñuy ñaan ay soom war di nii rencontre naa Macky Sall loolu yépp da lay sëlam lim bëgg a def lay def te loolu nag mi ngi nekk ci ay calcul politique am waaye dañuy fàtte benn mbir yàlla dafa ay ci fotum buur da ngay weer ba mu fendi mu taw ci kawam wa parti socialiste ñoo soxla xalifa sàll du xalifa moo soxla parti socialiste wa parti socialiste ñoo ko soxla kan moo fay leader kan moo fay leader bu am stature beeg jëmm ji et puis xalifa sàll sax man je crois que s'il est intelligent politiquement transcende na parti socialiste bu ci nekk dafay maire du parti socialiste ay composante yu bëri ñoo fal ko maire ñaari yoon doyal mairie Dakar te bu ne continuer action politique am ci feneen la koy parti socialiste parti socialiste nu mel nii al arrangé Je arrangé du ñam leader. bu ko mat seuk nek al topé Macky Sall di dawal ñuy lang Dakar matin ñuy lang ñom di rasat kon ci nekké ne loolu lañuy calculer ba duñ ko grâce ak yoy nañ noppalu Sall bu génn dina tal leneen lu dul parti socialiste parce que parti socialiste al topé ak wax fa deug neex njariñ khalifa sall bu nekkee ne politiquement la ñuy wax amul ko njariñ te bés bu génnee ci lii bu defere leneen <laughs> damay wax ne ragal naa militant personnel ñuy fàqe ñu fekk ko ci lam nekk waaye nag dinaa wax lenn de demi dieu wala euh, ambassadeur plénipotentiaire représentant de Dieu ici au Sénégal <laughs> ah duma ci tayi de kaddu mam abdou aziz dabax yi duma ci tayi ben yoon ñu and diglu أين عاد أين فرعون ومن ملك الأرض وولى وعسل ñooñ ñëpp dañ doon problème di folle dem nañu tey la dina ngi nii dégg na président si lu nekk ana mu tey ay na huwal alam jubóole nag seeni mbokk matin. Sénégal mi ngi buuj inondation bi fune Sénégal di buuj mom lu bari lu ma Mon Mon président Macky Sall ba muy diriger CIS moy cellule initiative stratégie 2003 la won defena financement suma djumul Idrissa Seck que premier ministre mon vacances Afrique du Sud far ci ginnaawam ñu nek ci ay inondation mom mo bindon ben communiqué bu metti parce que déwon nañ ko nako wad day dak Idrissa sek ina ngi fatlikou démission reconduction ba fi amone pap job dox ci ay tank nga xass ko mom de pourtant ñi inondé ma nga biaris ñu né sommet la fa dem ma lima jaaxal modi 2012 ba légui sommet bu am Macky Sall dem na mais musuma dégg sommet bu mu toj def fu ben discours mémorable comme wad nim ko mënoon a wax ay deug sommet yi ñu leen convoquer convoqué G7 parce que mo yor NEPAD ci Afrique mo tax ñu fay convoquer waye sommet yi bari na bari kérosène buñ ci lakk délégation mu fa mais musuma deug sommet bu ma toj ñu le président sénégalais a fait un discours mémorable véridique musuma ko deug ñom ña ngay vacances Sénégal di askan bari ba ko Idrissa Seck defoon dafa bindoon dal ci kaw Idrissa Seck à l'époque premier ministre mu def démission recondition ñu recondu poste premier ministre mu ñëw moy reer ba amoon kër Pape Diop te Idrissa Seck bindoon ci Dieu n'aime pas les traîtres Dakar Matin netaliko journal Le Quotidien génne won ko bo mi ngi won ci biir kasso bi Seynabou Ndiaye Diakhaté mi nekk of nak nekkon doyen des juges wëlbatiku door ko benen chef d'inculpation moy sortie irrégulière de correspondance ñu fekke dafa bari jour bobu lañu japp ñun ci miru salif sadio yobbu ñu commissariat central wa mom de mi ngi vacances sénégal nga buju te lu ci gëna day war le 28 août 2012 sénégal nek ci inondation yu metti lol Macky Sall nek bitim rew ñew ne li jaaduwul fa la jaaree prox ndollu ñu supprimer sénat nee na il faut que ñu yaxanal xaalis bu ñu yor ay ci ñu déglu Macky Sall ba muy supprimer sénat Dakar matin les souffrances occasionnées par les fortes pluies c'est l'occasion pour moi, avant de me rendre sur différents sites éprouvés, de présenter mes condoléances à toutes les familles de victimes. Je prie Allah, le Tout-Puissant, de leur accorder une place privilégiée dans ces paradis. Les catastrophes naturelles, comme les tragédies du fait de l'action humaine, constituent généralement des points d'un nouveau départ pour les peuples. Nous ne devons pas rater cette fois-ci le nécessaire virage pour emprunter les chemins vers d'autres rivages. Oui, il faut agir, ici et maintenant. J'ai ainsi décidé que l'État va consacrer des ressources substantielles à la recherche de solutions structurelles aux inondations récurrentes qui causent tant de malheurs de douleur et de souffrance aux populations. Comme vous le savez, le cœur de mon ambition pour le Sénégal demeure la satisfaction de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais qui a droit à une vie décente et digne. Et ce droit non négociable touche à la santé, à l'emploi, à la justice et à la liberté. Voilà pourquoi je tiens aujourd'hui plus qu'hier à ce que j'ai appelé le nouvel ordre de priorité et la primauté de la partie, de la patrie sur les partis. La réduction du train de vie de l'État au au profit de la satisfaction de la demande sociale. Voilà pourquoi, chers compatriotes, dans cet esprit, j'ai décidé de soumettre en procédure d'urgence un projet de loi constitutionnelle pour la suppression du Sénat. Les ressources prévues pour cette institution, près de 8 milliards, seront ainsi préliminairement consacrées, entre autres, à la solution des inondations à travers déjà le projet de gestion des eaux pluviales, projet, un projet que nous devons élargir sur l'ensemble du territoire national avec la mobilisation de plus de 100 milliards dès la prochaine année. 7 Dakar Matin. su may wax ne réew mi ci escroquerie politique rek lañ ko yor ñu supprimer sénat ñu ne dañuy yaxanal ci biir yaxanal googu dañ créé au conseil des collectivités territoriales au conseil des collectivités territoriales léegi may laaj askan wi yépp lan mooy njariñu loolu ak it bañ ko sampé ba tey jii lan la mësa liggéey loo xam ne askan wi yëg nañ ci gis nañ ci seen bopp may laaj collectivité locale yépp lan la massa gis ne au conseil des collectivités territoriales def na ko mu doon seen njariñ ndax saa bu ñu yeewoo dégg maire buy jooy ay jafe-jafe alin doy mie ci mujj ñu bëgg a jël école am su may nax ne réew mi escroquerie politique rek lañ ko yore dañuy def lii def fi di soob rek au conseil collectivité territoriale conseil économique social environnemental conseil économique social environnemental nam dañuy wax ne dañuy def ay rapport yu muccu ayib waaye bañ ko créé ba tey ji bañ ci rapport la nguur gi mës a jëfandikoo ba mu jariñ askan wi ba askan wi gis ci seen bopp ñu ne ah li de liggéey bu mucc ayib la ludul chaque année ñu ne la présidente a remis le rapport du conseil économique social environnemental point barre jeex na tak ñom ñepp yor auto yori salaire def lepp di badaxal ma dakh dakar matin li ñu wax rek rongo ñu baadolo moy sim bour amad dan soxo référence suñu papa Demna koku lañ mëna wax ne moy homme politique bu dundé désintéressement ba dem ku xam biir la la wax amna luma ci xam ba CPC tambali di réunir fele imon front ci appartement ba CPC cadre permanent de concertation de l'opposition ba mu génné ci gouvernement Ablaye Wade ak kérok muy dem woné na na deug deug askan wi rek kessé dong moko ñoron xex bo gis ma nga ca kanam malgré âge am malgré wéru di yaram lepp kon yal na ko suñu borom bi teeru dakar matin ci aljanna firdausi yi te am nañ ci njort lu wóor bu rafet sax ndax xeexal na askanam balan génn aduna. di jaale njabootam ay am di jàmmam ay xaritam ay wëlëreem mu bari woon ko lool nag den sant di leen gërëm di leen dig daje seen beneen chronique seen site dakar matin com inshallah